bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli wa sallim wa barik alayhi bismillah bokki julit yi ñun waa jaayanteeg seexul xaddiim añu jumaay Tuubaa ci ajjuma ju nekk kon tey la ajjuma fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar tombeeg la 23 août tey jii nag ci ajjuma ji tombeeg téeméeréeru at bi fi seexul xaddiim jógeeg léegi kon tey ci màggalu Touba mooy ñetteelu jaayante bu sëriñ Amsatu Lam ci Amérique sëriñ Amsatu Lam ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax ci jëf ji ñaan yàlla suñu borom sëriñ Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha yal na fi yàgg lool te ànd ak wér baal ñu àq alhamdulilah.